juf ñoo ma bàyyi. su <laughs> kaa mbay amul problème waaye waxoon naa la nga suturaal ma ba songay bu toogee nga wax ko si kanamam. du du doon dara songay laaj sax duñu may dara. waaye amul problème jëzër nee naa la loo gis rek. àdduna dara yàgg fii daal dina jeex àllar ñoo nañ ko fekkee jàmm dinaa def nii ba ngeen xam ne mënu leen da ngeen di jàng <laughs> waa Souka Mbaye tey école des jeunes mariés dañuy waxtaanee rek mu jéeg ji nga xam ne dañuy tongoo seen goro yi mu tong sa goro maanaam nga tong sa euh, yaayu jëkkër mu nekk loo xam ne sukaamba yi bëri na fi léegi te li koy waral lu bëri bëri dañ naan ci góor ñi la parce que sukaa mënuma comprendre tey nag dañuy daal di jéggal élément bi rek ñu daal di ko paacoo ku nekk daal di si jël sa wàll rek ngeen jéggal ñu élément bi temps bi moo ñu ko mayut <laughs> Souka Mbaye ban temps xam nga ban temps sëñ bi dafa jël temps. temps am na ak kii bi ñu may bi ñu may am na temps am na. ay ca nañ continuer Souka Mbaye mu nekk loo xam ne dafa. ala kii bi dafa nekk lu ñaaw Souka Mbaye ndax nag euh, boo demee nag bay tongu si nga xam ne moo la jural sa borom kër. ak a jubadi moo la jural ki nga xam ne moom kii Souka arrêté bàyyi leen saboote bi ngir yàlla war a sóori. rek leen bàyyi leen leen may def tey ah ngeen foog ne ma ñaar loxo yu ma xeexee <laughs> moo tax tey lu leen neex def temps bee ñu ko kon nañ ko paacoo rek ku ne jël sa wàllu sukaambay du dëgg lu noonu muy loo xam ne sukaambay euh, jéeg ji nga xam ne ñuy tongu seen goro sukaa muy lu ñaaw a ñaaw ndax nag euh, goro yaay la sukaa mm-hmm. goro moo jural ki ki nga xam ne moo lay bégal kon nag am na yoo xam ne ak lu ngeen mënta jote xaw ma jote yu sew laa jote bu séeréer yëpp laa ci yemale ak loo mënta jote sa goro tongoorul seen diggante ndax bu fekkee da koo jàppee ni sa yaay sukaambay nga sëy jàppee sa goro ni sa yaay yaakaar naa euh, tong waru faa am te da ngay gis jég joo xam ne bu ñu tongoo seen goro yi même weeru koor doo tibbal sa goro yàq muy loo xam ne man benn meer moo ñëw di ma ko wax ma ne ko am na loo xam ne nag bu demee ba am mu ne ma ne ko sa doom la ndax nag mënuma comprendre nga ne yow yaa takk sa soxna andi ko si biir kër gi mu war laa sëyal mais boo demee nag ba ñàkk sa kàddu si biir kër yow représenté woo dara ndax nag li li gën a ñaaw li gën a ñaaw mooy sa sa yaay nekk tout près nga nekk sa jabar muy togg di yëkk ngay lekk même boo tiimee lekk mu neex sa saxee war na dem sa yaay pour man loolu benn sentiment boo xam ne la lu war a daw sa diggante ak sa yaay la ak lu sa jabar loo mën a bëgg-bëgg sa jabar sa jabar lu mu am mën am problème ak sa yaay su kaambay bu toggee même bu dul chaque jour parce que chaque jour sax kenn sasu la ko mais lii di korite lii di tabaski li nga xam moo di weeru koor yoon la sa jabar togg ndogu yóbbul ko sa yaay même bu nekkee mënuñoo juboo sax mais benn acte boo xam ne la yow muy jeeg sax sa borom kër bu la ko waxul yow muy jeeg yaa war a am xel bi nga def ko parce que jeeg yi nga xam ne dañoo bëgg liñ naan dañoo bëgg dégg liñ naan euh, dalinkoor dalinkoor du nekkul sëy tuwaay maa moo la koy may de di sëyal njëkk dinga nga sëyal goro mais di nga sukaa mbay néew ma nag yow mi nga xam ne yaa ngi sëy sa jëkkër sa sëy du neex de déedéet mais nam war a neexee dina des parce que jeeg ji xorom lañ maire yi xorom lañ si njëkkee itam xorom lañ si mais boo demee bay toog sa goro dama naa yow respecté too sa sa jëkkër ndax sa jëkkër toog nga toog naan diw de du ma wax ak moom diw nii diw naa am na loo xam ne Souka Mbaye dafa rafetul ci diggante nit ak ki mu bëgg ci diggante nit ak koo xam ne nga da nga koy soutenir parce que boo bëggee sa jëkkër war nga ko soutenir ci a nekk kon loo xam ne sax ay diggante yu yàqu la nga ñëw euh, li nga xam ne moom moo di mooy waaw jéegu puso nga ñëw diggante yi mais yow bu fekkee dangaa ñëw bu ko tepp yéen diggante yi sa ngay tonk ki nga xam ne moo di yaayam su kaamee loolu dafa ñaaw ci jéeg loolu dafa ñaaw rafetul parce que waxu ëllëg mooy tax te da ngay jur ay doom boo juree ay doom te balaa ngaa xam sax loolu moo moo métti tey mm-hmm, mm-hmm. ñu takkal la wujj kooku ñëw respecté goroom. yow respecté woo sa yow respecté sa goro. kan mooy biir conséquence pour yow. Eh, eh, mm. ah waaye parce que yow bu fekkee kee dafa ñëw jëkkëram bëgg ko. ay gorom bëgg ay njëkkeem bëgg ko new ma dinga du la gañe de mais point yu bëri dina ko rëbb yóbbu. kookoy jéegu dalinkoor kon nañ fexeel def loo xam ne ëllëg bu ñuy bu boo xewlee ëllëg sa goro dina taxaw tagg la. say njëkkee taxaw tàgg la say dëkkanoo taxaw tàgg la mais boo nee sama say toi et moi rek ñi ca des bokkuñ su kaambay loolu day daal di nekk loo xam ne daal rafetul ci diggante sëy mu nekk loo xam ne dafa ñaaw su sama lii mbaa ko fi fàtte Omar Aïcha waaw ah, tongu tongu sab uh, goro xam ne uh, yenn saay lan mooy kilifa ak kilifteef moo koy waral mm-hmm. parce que damay faral di wax naan booy takk jigéen bokk na ci critères yi boo xam ne man dama ko ci boole mooy koo xam ne dañ ko yilif te nangu na ko yilif kooku boo ko takkee di nga ko mën a yilif mm-hmm. mais aussi sa waajur dina ko mën a yilif mm-hmm. ndax moom tàmm na kilifteef xam ne def dañ koy tàmm mm-hmm. parce que autorité daf ci am ñoo xam ne duñ ko accepté mukk am ñoo xam ne fu ñu jàkkaaral autorité wan ko ni man maay kan man maay dayo bi mu ñu nangu nit yilif leen naan leen jaar leen fii doxe leen nii deme leen nii loolu dafa am ñoo xam ne ñoom duñ ko def parce que danoo jàpp bu ñu ko defee ñoom danoo tuuti que ñoom danoo rëy loolu da des fois loolay indi lii maanaam li naan lépp loo xam ne feeñ see nuyu woon na congor ga mm-hmm. loolu tax des fois xool jigéen ji tamit fa nga koy jëlee est-ce que ndeyam yilifoon na ko wala mm-hmm. baayam parce que bu tàmmee ndeyam yilif ko ak baayam kër gu mu dem yow sa borom kër gi di ko mën a yilif mais en même temps tamit euh, kii di sa yaay yow dina ko mën a yilif mm-hmm. parce que moom bu ñëwee gisatul goro mais ki muy gis mooy yaayam parce que pour man comportement bi yaay jëkkëram mën a am rek moom waru ko yóbbu ci comportement mi defante ak moom parce que booy defante da ngay defante ak sa morom aussi parce que ki la jural jëkkër kooku foo teg sa jëkkër rek boo nee bëgg nga sa jëkkër fonk nga sa jëkkër te fonkoo ndeyam fonkoo bàyyam rek da nga koy nax mais aussi bëggoo jàmmam parce que góor ñi tamit li seen jàmm bokk na ci jàmm joo xam ne seq nga ak seen ndey. Mhm. loolu day bokk na ci li day bokk na ci li leen di mhm. mais bépp góor boo xam ne gis na jabaram ak ndeyam jubóowuñu mu ne loolu neex na ko de du dëgg être da ciy mën dara faj ko la mu ñàkk ci mën dara dem ba amatu ci pexe mu toog di ko muñ léegi nag goro bi nu mu mel. Mhm. moom dafa war a xam lan moo ko indi ci kër gi mais dafa xam war a xam aussi lan moo ko war mhm. maanaam di ko póotal wala di ko paaseel wala di ko toggal di ko yekkal mais aussi tamit fexe ba yenn ko yenn coono yi maanaam bi ñuy jur doom. liñ ci jublu mooy bis ñëw doom ji dëgër ba mën laa amal yenn njariñ mais mun laa tegg yenn coono yi mais yow bu dee ni tey jii yow jigéen da nga sëy si kër gi tegguwoo sa goro benn coono mais sa ñëw ci kër gi après yow ban njariñ lay am ak yow tey jii sa kër gi lan la lan la jur parce que dafa war a am impact parce que aussi tamit jigéen ji dafa sonn ci kër gi ba mun a am goro kon bu goroom ñëwee tey jii moom noflaay la war a doon ci moom ki nii li mu lebloo woon la bor la boo xam ne dañ ko ko war a fay ak comportement bu mu mënti doon man fii waxuma tax ci goro bu baax ak kenn même mën na doon goro bu goro bu bon mais yow mi sëy si si kër gi yow sa yoon nekkul ci loolu yow dal la fa indi sa yaayu jëkkër la mhm. jàppee ko ni sa yaay parce que tamit sikk gi ngay gis sa goro di ko yenn saa gis nga bi ko ëpp ci sa ah. yaay te yaa ngi koy muñ te yaa ngi koy muñ mhm. parce que da nga ko jàppee ni sa yaay mhm. mais moom aussi tamit na la jàppee ni doomam parce que tamit sikk bi muy gis ci yow ba di tongoon teg yow mën naa am tamit gis na ko ci ay doomam di leen mhm. gérer mais aussi di leen sangu sutura kon loolu lépp day dellu ci kilifteef pour mhm. man jigéen yàlla da am lu mu ko nattoo te loolu bu ko nangoo noppal mais bu ko bañee nekk ci coono mooy jigéen suñu borom da ko nattoo ñu koy yilif mhm. ba ba muy faatu te daf ci am jigéen ñoo xam ne rek dañuy bëgg bañ loolu des fois loolu tax seen nekkin ci biir néegu sëy di metti waxuma la sax seen goro mais seen jëkkër sax day maslaa ak ñoom mais pour mu yilif leen day jafe pour man looloo indi situation boobu xam ne ay tong di ci am mais tong da ngay tong ak sa morom mais mhm. am na ñoo xam ne aussi mhm. tamit noonu la leen yaree am ñoo xam ne noonu la leen yoree parce que dafa am ñoo xam ne mag ñi koy faral di wax nee nañ jigéen ak moroomam maganteel amu fa maire mhm. yi sax des fois ñoom dañuy wujjee bay wujjee ak seen jabaru doom maanaam jigéen ci boppam dafa mel ne suñu borom da ko mooñ ak kujjee mais yow mi sëy si xamal li la indi rek dëgg la li la indi pour man loolu am solo euh, waa jërëjëf euh, Didi maa ngi lay ziar bu baax di la ñaanal yàlla jàmm xam nga xale yi bu njëkk ba sëy yu njëkk yi boog laa bëgg a wax xam nga école des jeunes mariés nga wax mm-hmm. ma yaakaar ni ndaw ñi dañ leen war a jàngalaat ab sëy mm-hmm. dugal leen ci école école nag du lu ñuy tijji ñu fay xëyee ko wàcc mm-hmm. waaye ay jikko yu ñu installé ci xale yi bala ñoo sëy bu njëkk ndey da daan togg yaay yi ñëw toog bu njëkk ndey ji da daan kii Eh, xam nga mu baal ma xam naa bëggul ma koy jël exemple alaaji dañuy faral di waxtaan mu ne ma des fois su may sant leen sama soxna njaboot gi dañuy toog hmm. su ma leen defloo dara njaboot dañuy toog pour ñu xam ni seen yaay lii lay daj hmm. loolu formation la pour ci sa doom yi toog xam ni seen yaay day tarbiyu seen papa su seen papa wàccee amul benn occupation bu mu war a def lu topp toppatoo jëkkëram hmm. nekk ci ay service am nekk nekk nekk loolu avantage la ci xale bi léegi xale bi nag bu fekkee ne amul sens boobu ñu formé ko mu gis yaayam li muy daj ci kër gi di sonn di nangam su génnee du am formation dafa am xale yoo xam ne nag ñu loolu ak jamono bi léegi ni mu demee nga xam ni daanaka ni papa jeeg yaay ji bu ñu xëyee génn nañ kër kër ji ngir kër gi bu ñu dellusee fekk xale yi nelaw amul benn éducation buy am seen diggante ak xale yi daanaka ni du am te yaay ji ëpp sens pour yar xale yi ñoom ñaare duñ toog ñu ko sama maître di waxee fàllu seen ñu ngi topp natt yi ñu ngi topp ndayale yi ñu ngi topp xew yi fu nekk ña nga fa amuñu temps wu toog yar seen doom bu ko defee xale bi amul benn école te arab yi dañuy wax ni al umu madrasatu maanaam yaay mooy école bi gën a mag pour doomam léegi nag bu fekkee yaay ji raté na loolu doom ji du am benn yóbbal bu mu am ci ci sëyam xale yi nag am na ak ceytaane gu ne ci ñoom ndax bu dee mën ngaa dem ci koñ bi am sa benn meeru koñ xam nga koy def naan ay sama maire bi ni mu baaxee maire bi li may kiyal mm-hmm. yow boo mënee dem ba am meeru koñ man ko boole ci sa dund ni mooy sa meeru nangam. ba meer bi mooy ñëw waaw te yow munoo di gérer sa goro munoo ci moom dara te moo la jural sa jëkkër tey teraanga ji lu mu bari bari lu mu néew néew lu mu neex neex mooma mhm. kon dama jàpp ni tong wuru faa am bu njëkk nag daanañ wax ni bu lañ bu ñu yàpp sa doom boo demee ka nga fay fekk def ko ni man mhm. lu mu la def jàppal ni man maa la ko def nga muñ xam ni am na loo xam ne li mag ñuy wax dund mu jeex wala dee mu jeex gis nga kuñ fiy torturer nga muñ ko Euh, li ñu naan asabru nisfu wala iman maanaam muñ mooy genn wàllu gëm yàlla amul kenn kuy muñ dara sax ci ñu lay torturer da nga koy muñ après goro bi xëy génn ca yooyu màggat wala tàngat ba jeex wala mu xëy dem bàyyi la fa nga dund ak sa ak sa kii mhm. euh, maa ngi ñaan daal xale yi mhm. nañu ut ay roywaay ci sëy mhm. xool def recul xool maam jaara lan la defoon tey ba ba ba ba seexul xaddim am li mu am lan la sa euh, sa wayjuru Seydi si defoon tey ba Seydi Hadji si am lii mu am mhm. loolu ay foo mayewu ko waaye tongoo mhm. ci mag moo xam ni mag ñi yomb nañu muñal mag bi la jural gis nga mag ñi maa ngi jox secret benn jéeg ji mag ñi weccet donc lañ bëgg mhm. xaalis mag mu ci banque naqari deret mag ñëpp te mag mu la ci gën a màggat moo la gën a bëgg weccet léegi nag boo amee weccet kay di fóot di togg di def nangam léegi nag nga ñëw ni ko waaye yaay am jàppal ci lii yàlla xam na ne amuñu problème waaw ñoom ñëpp bëgg xaalis goro yi nañ leen yéen boo jëlee sa goro te nag neexul nag sukaar nga nekk màgget say poset ak sa nafa dara newu ci xale bi di la romb di say see da nga naan sama doom de lu mu liggéey jox na ko waa <laughs> léegi nag des fois doo ko mosal des fois nga jël vaccin jox ko des fois mbasin nga jox ko des fois nga ñëw ko waaye yaay am jàppal ci lii bu ko defee man jàpp naan daal tongo du am ci gi te tongo bu amee du jigéen ñi de man damay jàpp ni dañuy bëgg way eh, te xamuñu luy maye way parce que way moom bu ñu tagg la mu safee eh, du doon lu neex looy dund mais lu neex looy muñ la du loo xamante ni da nga koy fekk ci kër nga muñ ko waaye lépp neex comme ni xale yi jigéen ñi bëgg léegi nga xamante ni bi ñoom ak seen jëkkër dong mm-hmm. bëgg ëllëg ñu am way dinañ am way de mais ndax way wa dana leen neex parce que bu sa way neexee say doom ëllëg wala mu neex say mu neex la ëllëg faw nga affronter li nga xam ni mooy épreuve yi nga xam ni mooy maye loolu bu njëkk ba nag jeeg ju bari dañ ko daan am dañuy ñëw ci kër goo xamante ni këru famille la sëy fa muñ fa parce que loolu yëpp euh, looy war a muñ la parce que da ngay dem ba yàgg mag ñi dootu leen bokkati gu du ngeen bokkati kii loo def ñu mer mais li ñuy mer noonu âge beeg yooyu yëpp da ciy joué. Mhm. mais loolu ñuy mer noonu yëpp. loolu yow voilà yooyu yëpp da ko war a muñ yow. comprendre nga bañ koo def benn kaa nga gérer ko parce que defar ëllëg sa way. Mhm. ñu ne ah diw de muñ na lii ak lii ak lii ci kër gi. muñal na ab gorom léeg-léeg nga gis koo xam ne dañuy wax ne gorom dafa tàngoon waaye moom de loolu mooy wane kon ki fa sëy eh, lim muñ mhm. donc il faut que jigéen ñi aussi tamit di xam loolu. togg sa goro moom euh, d'abord li ci njëkk mooy euh, jëkkër ju ñàkk fayda it mu ngi ci waaw mm. ah, parce que nan ma takk jabar muy tong sama yaay kam mu nekk ak moom ci biir kër gi di ko tong déedéet loolu tamit war tane dafa am yoo xamante ni dafa am yoo waaw waaj bu ko yëgul waaj na ko bañ a yëg def comme euh, théâtre yooyu nga xam ni bu kii ñëwee comme li ñuy def mm. jouer mm. def ay affaires yoo xamante ni mën na nekk mais waa ji moom bu ko yëgee moom loolu moom wartane lu warta ne moom wartane parce que sa yaay sa kii sa jabar waru ko toog loolu moom wartane donc nag bu demee nag ba ne peut-être jëkkër ji da koo yëgut te tamit jigéen jiy def loolu na sóoraale ëllëg si biir ne moom it day nekkaat ci même situation bi day am dafa am doom dafay am ay goro ndax na nan la bëgg ay gorom nekkee ko donc il faut ñu calculer da ngay gis fii jigéen joo xam ni day wax ne man du ma sëyi ci kër goro te ëllëg si biir moom dafa war a am ay doom doom yooyu dañu war a am doomam yooyu bu ñu waxee ne ñoom it du ñu sëyi ci kër goro léegi euh, looy wax est-ce que suuraale nga loolu donc il faut que nit ñi nangu di sëy ëllëg si biir yàlla mën na def lu ne mais lépp na rafet mm-hmm. mais ngay ñëw ci kër naan duma ma kër goro man wutal ma appartement moo tax góor ñu bari li kii doon wax sànq ñu bari mënatuñoo samp kër. Mhm. li tax mënatuñoo samp kër da ngay xëy commencé liggéey ñu ne la il faut nga takk jabar nga takk jabar jabar ji ne la il faut nga wutal ma appartement nga wut appartement dugg ci ay bor nag sa giiru dund. léegi nag nooy sampee kër. donc léegi. finalement mooy indi ay détournement sàcc na kees ga def na lii pour jéem a tabax kër pour jéem ee génn. Mhm. parfois loolu mooy indi yenn affaires yu bari donc il faut que jigéen ñi nangoo dem ci kër goro yi. daal dee sëy mhm. parce que loolu dafa nekk loo xamante ni bii lu am solo la. <laughs> mais ay ca da lay tàggat c'est que <laughs> c'est que xam nga bi ban damay wax sama xalaat bi sama xalaat laa saa wuy ma ne da war a yem ci li ñuy jàng xam nga wax naa yàgg naa la wax ne yemal ci thème bi da nga war a yem déedéet waaye dañ la respecté yi respectul goro yi looy wut ci appartement looy wut ci appartement <laughs> génnal appartement bi génnal non non waxu la sax yow mais mais daa war a génn appartement bi yow waxoo appartement bi wóor na yàlla jàngat laa de mais mais euh, <laughs> kii moo tax sax ba xalaat sax daa koy <laughs> wax. calcul da ngeen dem sëy gi nga wax. waaw mais saa yàlla doo wax loolu yëpp <laughs> calculé wu ko ko mais ah. après bu ma xoolee ne. nañ dem sëy ji ah mais saa mais nit mën naa ne ci appartement respecté gorom. wallaahi azim ah. Eh, gis nga sa goro di la seet si. gis nga sooy boobu loolu namp sax moom ngay toog tam. dëgg la xam nga sànq euh, ki nga invité sànq dafa am dafa wax lu am solo. gis nga tey sa yaay bu dee sëykat euh, di def yoo xam ne da ko daan gis comme li nga wax ci saa ni buy sant ay soxnaam ay doomam dañuy toog mm-hmm. gis nga tamit sa yaay buy def loolu nga di ko gis loolu da nga koy def. waaw la. dégg nga wax bi am na loo da xam ne lii moo war. waykat bi nee na doom ji jigéen. jaangaandiwul day jaay royukaay bi ca lay xool ca lay xool doom day gis nga ah, boo dëgg la gis nga boo gisee <laughs> di di boo gisee jigéen joo xam day tongu jëkkëram xamal ni sa yaay da daan tongu sa baax. Mm-hmm. Ah, gis. nga di ko mm-hmm. Mm-hmm. lii dara nekku ci. Ah, waaw nga ne lii dara nekk ci parce que sama yaay daan sëy waaw seen yaay voilà mais boo gisee sa yaay daan sëy di ngay gis sa yaay lam daan daj mu koy daj ci biir kër gi mu nga mu di ko muñ di daw ndax yéen di daw ndax lii chaque jour mu di ko dëkkee ci seen nopp am nañ jëm lii ak lii lu fu la tegloo danga da koy teg da nga boo fa tegee bu même boo ñëwee sax même boo sëyiwul bu la tegee naqa ak métti sax da nga koy muñ te yàlla rek tax xam ne dangaa bëgg doom ju baax te yow jigéen yow rek yaa mën a wax ni que man bëgg naa lii te yàlla mën na la koo defal te mu doon di gën ci yow mais da ngay muñ di xool li sa yaay daan def nga di ko def loolu rek man de loolu laa gis man. dëgg la suka mm. kàddu yu rafet na macha allah kon nag mu nekkoon loo xam ne bépp jéeg boo xam ne yaa ngi koy dund instant bi lan la. suka mais léegi mais léegi yow da sa thème di thème bi n'est-ce pas a analyser ku yéen da wax ba yow yow ak son yi bu nag di reetaan. Ah, ah, mais ah kon wóor ñoo reetaan. di ah, war a sëy nañ dem sëy la wax. man bi may wax thème bi man ka man bi may wax. waaw calculé wu ma sax sukkand. mais damaa jékki-jékki sooy bu. di ree ba pare nag. <laughs> léegi ba léegi ba waaw mais dem sëy mais li ma wax it garaaw de. waaw di dem sëy ah, loolu kay moom mooy mën nga mën nga sëy ah. lii bi ngay def thème bii laaj nga ko sukk. <laughs> waaw yooyu. c'est <laughs> que yow c'est que daanaka temu di di yëpp ci sukaale inspiré. ah a ñëw waxtaan ak moom. daanaka léegi tem temu sukaala ni man bu dee bu ma waxee. su ma waxee du joxoñ ba dama sukaalaay wax. kon dañuy koñ tem yi kañ tuur. <laughs> xamul la tem yu bëri moom a koy jox. tem boo xamante ne ah. <laughs> koy jox. kon xanaa ah. thème appartement def nga ko. mooy sama borom say appartement yi def nga ko. Ah. say appartement def nañ ko waaw. ah, ah ko de man mi du man de moom. waa léegi yow ñu wax mais da ci gis sa bopp te wut te a koy xool yéen a koy xool yéen a koy xool ñu indee thème ñun dañuy jàngat. wax dëgg yàlla waaye da ngeen di jàngat ba feebar nag. sukkandu du fi nekk bloqué ñu. duñu fi nekk di di di wéy naan non ko da koy gis dañuy wax li ne sunu wax dëgg yàlla point. bu leen déglu déedéet am ah. kay man damay muñ de man dama daan sama yaay day muñ damay muñ dama daan gis muy muñ damay muñ yow mbaay ku loxo xam ne doo tonkatu goro eh, non non sérieusement nag ñu koy ñaanal sax maman Marie Guèye euh, di yaay ci Boubacar di yaay moom kooku léegi anniversaire am sa sax ñëw dëgg la voilà kon ñu koy ñaanal kon Souka Mbaye li nga xam ne moo di seen rubrique école des jeunes mariés waaye tey di remercier ki nga xam ne moo jaar ci tunique bi mooy Mima Couture Guèye nekk fële ca partie unité 26 ak vingt cinq boo ci dem fekk fa numéro am di 77 573 quarante cinq cinquante waaye yëre bi nag cat da cee mujj dugg mais garaawut. Euh, mais rafet na trop benn loxo bi rek laa yëkkati. c'est très joli macha allah. lu paalo. lu paalo Samba balaa gëm na naan ubbeeku <laughs> jërëjëf mu nekkoon seen émission bu mag bi les mujj tàkku show